والسلام على asraf al-mursalin sayyidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki julli mbokki téléspectateur Thiès TV ñu delluwaat nuyu leen ziyaara leen ndokkeel leen balluwaat leen xaq ginnaaw bu ñu jógee sa jullikaay ba niñ ko daan defee saa su ne ànd ak fa tabaarakalla mbokk téléspectateurs yi dem ziyaara yi kilifa yi moo xam autorité étatique religieux chef coutumier kenn kus si ne amoon nga yéene fa tabaarakalla kër gu ne nga fëgg ko waaye saafanteeg ñoom balanteeg ñoom ah waaye à travers seen télévision Thiès TV la première seen thiessoise fa tabaarakalla dem fekk leen bu ko defee yàlla dogal ñu mën a ziyaaranteeg mbokki jullit yi saafanteeg ñoom balanteeg ñoom ah fa tabaarakalla ñaanalaat leen ba déwén loolooy sabab bi fa tabarakallah nañ ko daan defee saa rek buñ julee ba pare ñëw nag suñu kër baay alhaaji Socé Ndiaye opérateur économie nga xamante moo daan léemu jotaay bi saa su ne buñ dikkee fa tabarakallah ñëw dëkkat ko suñu micro saafanteeg moom waaye mu saafanteeg am di jàmm yi ak waa koñ beeg waa réew mi fa tabarakallah comme nañ koy daan def papa asalaamaaleykum aleykum ñu leen di ziar ñu di ziar bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla sunu bés bu tedd bii nga xam ni moo leen gënal ci bés yëpp ah yàlla na yàlla def bénéfice bi yëpp dugg ci umma islamique bi ñëpp defar leen jàmm mu nekk ci ñoom jàmm ak sutura ak teraanga ju rëy rëy rëy tey feetu lislaam la bés bi rek la na am mooy suñu feet feet bi gën a rëy ci suñu feet mooy bës bi ah ñi ñi ñi ngi cee ñi ngi cee ñi ngi cee ñi ngi cee ñaan yàlla lépp loo xam ne mbépp mbépp euh, métit la yal na ko yàlla saafara yal na ko yàlla saafara ah, di ñaan yàlla itam sunu mbokk yàlla nekk fale en Palestine lii leen dal lu métti métti la lu métti la ah yal na leen yàlla aar ñoo moo leen mën a aar su boobaa itam ñu ub jublu ci sunu mbokk yi Sénégal yi di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla defal leen jàmm defal ko mboolem jullit ci barkata rasulullah sallallahu alayhi wasallam euh, am xalaat bu rafet nag ci ñi nga xamee ni ah dëddu nañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla xare leen àjjana wutal leen kër firdaws ñoom ak mboolem jullit ci barkata rasulullah sallallahu alayhi wasallam kontaan na trop bi nga xamee ni

metti na gis ngeen science euh, yi fi am gis ngeen euh, euh, coono gi nga xamee ñu ngi koy daj mais yooyu yëpp day teggeeku su fekkee ànd nañ ci ak jom ànd ci ak sutura nangu liggéey bañ a wàcce loxo yi ah te xam ne lépp lu ñëw rek yàlla yàllaa ko dogal mais ñun ñu sabablu ci bu baax a baax a baax jeunesse thiessoise ñu am ñu am njëriñ la soo yeewu suba teel ko taxaw sa buntu kër xool xale yi ndaw yi ku nekk yaa ngi gàdd sa outil ouvrier war a dem xool jigéen ñi itam ku nekk fa nga mën a dugg pour mën fa am sutura sàng sa personnalité ak sa dignité duñ cee gëm yàlla ci sant bu baax a baax bu baax a baax ah, maa ngi gërëm ñëpp man wax ci mbooloo lu ma difficile la eh, maa ngi maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama famille di gërëm samay soxna samay mag samay géer ñëpp ah di ziyaara bu baax a baax nag suñu imam suñu imam yëpp ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen ñaanal yàlla parce que ñoom ñoo ñu fekk ku nekk xam ko si diwaanu cees rawatina si Senghor si taxawaay yi nga xamante mu ngi koy taxawal ndaxte fa la yàlla dogal na ñun moom kenn du yootuñu ko présenté ndax ku nekk xam na li mu liggéey si Thiès liggéey ko si réew mi waaye jeunesse yi nga xamante ne rekk na si wàllu emploi kenn ku ne fa tabaarakalla góorgóorlu ba nga jàngi métier tey ba mën a taxawu say wayjur kook ak cant la waaye sant si nag bu baax soxnaa mi comme ni mu ko waxee yaay Rabi Diagne Adja Khady Fall fa tabaraka nuyu njaboot gi yëpp rek ñaan suñu borom yal na yàlla may ñu fekk ay ati ati at at ci bat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fa fatabar équipe baa ngi nii saa su ne ñëw ànd ak ziar directeur de programme xaaji Pape si la waaye ànd ak sëñ Mouhamed si sëñ Mouhamed Lamine fa tabarakallah yal na yàlla defal ñu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.